ñu ngi koy ñaanal bu baax a wax ni Reug Reug champion la ndaanaan waaw ñu ñaan nga ci defal tuuti analyse. xam nga lu tax ma ma ma sama xel dal ci combat mooy guy gi dafa bëgg combat bi. te suñu borom may na ko matière boo xam ak ñor bu nga xamante ni bu nekkee ci forom danaan la combat bi ñi lay demee fii ngeen ñuy jaar nañ jàpp ma jàpp maa ak yow ñi lay demee combat bi. force wuñ ko combat bi combat bi combat am la moom moo ko jëlal te dañ koy jàppale bu baax a baax. est-ce que nekkul laa sës tax mu jël combat bi. sës fan. parce que boo xoolee propose nañ ko ko mu bañ ñu ko ko mu bañ mu la fin mu doog a nangu. non loolu ah, nit nit ku nekk tey jii comme tey ku bëgg sama combat tey jii ñu ngi discuter te jubóowuñ ci kase mais Reug Reug daf daan ñaar ñu nga xamante ni nit mënu ko bañ. te ñaar ñooñu ñoo gën a naqaree tëral ci làmb ji champion la bien vrai guy moo ko raw jël na ko mais làmb yi loolu moo fi nekk quoi loolu moo fi nekk nit mënoo ni da ngay xaar ñi nga war a bëreel ñi nga war a bëreel ñeneen dañuy xaar ñeneen ngay xaar ñemale suba doo leen bëgg du ngeen am image amateur duñ bëgg xaarandi bi métti moo fi nekk di amul njëriñ. mën nga ma defal analyse bu gàtt. moo tax ma la guy gi xam nga lu tax ma la carrément guy gi. Eh, waxuma guy gi de wax guy gi nga may wax yaa guy gi yéen a bokk analyse laa la wax ci gënte guy gi ak Reug nga defal ma analyse. mënuma def analyse te guy ndax xam tax mënu guy gi ak Reug Reug ñooy bëre damay ah, tudd guy gi wax ay fooru guy gi bëgg na combat bi mais waxal ci Reug Reug lan laa la wax ci Reug Reug léegi non da ngaa def jikkoy journaliste maanaam maanaam da ngaa def jikkoy journaliste xam na nga def jikkoy journaliste. waaw léegi waxaatal ma dégg waaw léegi waxaatal non da ngaa far moom. kenn ren ko mais da nga ne ma ma décortiquer la dèjà. waxal ma waxal ma teg ko ne. dama ne la rëg-rëg dafee daan ñaar ñi di nga xamante ni ñoo gën a naqaree tëral ci làmb ji. non yow fi nga waxee mooy li tax rëg guy gi jël rëg mais nga décortiquer ma laa bëgg nga waxal. xam nga da nga maa bàyyiwul ma yeggali. voilà ñaar nit yi nga xam ñoo gën a naqaree tër mu daan leen avec la manière bëre loo leen xam nga kon kooku ak ndaanaanam kenn mënu ko na table mais dama ñu la guy gi moo bëggal combat bi boppam te mi ngi comportement bu nga xamante ni bu bëggee lamb ji demee ni daana lamb ñi lay demee te ngi daal daal yàlla na yàlla borom dogal ñun luñ bëgg euh, suñu borom dogal ko moo ñu jàppan seen loxo roofoo ku nekk jàpp ku nekk ngëb dëgër ku nekk jàpp sa gëñam meroom ñu yéen rëg rëg incha allah man daal li ma bëgg a dégg ba léegi waxuloo ma ko